ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi siiwul seen bi di Ligzo TV mais gars yi Amza Zo mi ngeen yaakaar ne duñ ci wax c'est kii buñ ci waxul sawaay yi boo moytuwul dina fi génne dossier kilifa de wala mu génne fi dossier président lu leer laa leen wax nag mais gars yi tey de nee na la jàpp ñu Pape Moussa fecckat ñu déglu ko li mu wax ci Pape Moussa. damay ñëw ci kaaw Pape Moussa Sonko fecckat boobu nag kaa gën a koo nag. su ma jug su ma ñëwee nag ma ñëw ci kaaw Pa Moussa Sonko feccikat mbaaco dafa nekkoon ak Pa Moussa Pa Moussa Sonko feccikat mu dem fekk jabaru Pa Moussa ndey faatu fekk ak ko këram jàpp ko dóor ko dóoru dóoru dóoru dóoru ba toog ci kawam il est que ndey faatu war ko yóbbu police moom mu ëlbatu ko dem porter plainte euh, ndey faatu man xawma gendarmerie euh, brigade de recherche ñoom ndax luy seen problème ba ndax mbaaco ñoxor njaay rek mu ñëw bindal leen plainte gis nga dëkk bii dafa am loi léegi Sénégal bu njëkk ba ay gonfaleeg fay policier mu fekk la jëlal la nit ak moom ñam parce que ba mu fayee policier yi pour ñu dem sax saxee ma mambaay bu ma génne ko appartement bi ba mu ñëwee dafa fekk mambaay indi huissier comme moom yaakaar na ne xam na ne nguuru Macky Sall gii soppeeku na boo ko ak nguur gu njëkk ga ma eggali ci affaire Pa Moussa bi récemment nii nii nii nii nii nii nii moom bi bi eh, dafa sëy maam Baye deux mois rek déclaré Pa Moussa ne dafa tes ak maam Baye ba Pa Moussa ëmbal ko ci ëmb bu ndaw yàq ëmb bi.